bu 15 heures euh, jotee euh, jàpp 16 heures ñu daal di ñëw si seen euh, émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot aadama jàlloo moo nekk ci wàllu machine bi ñu sunu mbokk auditeurs yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu mboolem mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci rajo bi personnel bi yëpp mbokk yi nag tey dañoo am ñaari invité waaye embouteillage bi moo leen téye ñoo ngi ñëw ci yoon bi. Euh, kenn ki professeur euh, professeur Iba Barry Camara la euh, di ab jàngalekat boo xamante ni day jàngale lu jëm ci wàllum droit pénal ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey Iba Barry Camara su ngeen gisee ñu invité ko ma ngi ci yoon bi ñëw li ko waral mooy mbiri Ousmane Sonko ak wàllum yoon. lan la ci yoon wax ak wàllum procédure bi am ci assemblée national ak déclaration yi Ousmane Sonko def euh, lan moo ko ci mën a fekk yooyu euh, moo tax ñu invité ki nga xamante ni mooy professeur ba Barry Camara mais ci geneen wet gi tamit dañoo am beneen invité euh, di ancien ministre ba Senghor moom ti ma ngi ci yoon bi embouteillage bi aadama samedi ji embouteillage bi dafa mel noo xamante ni lu doy waar la mais suñ benn invité bi ma ngi ci ma ngi ci ligne bi ñu waxtaan ak moom en ci yoon bi monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. oui ñu euh, ñi nga xam ne. Uh-huh. ñu ngi déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew mi. Uh-huh. monsieur le ministre embouteillage bi bari na ah? waaw bari na bari na trop trop mais ñu ngi si yoon incha allah dinañ. egg ak jàmm. d' accord euh, euh, monsieur le ministre euh, xam naa ne bala ngay euh, agsi ñun euh, laal tuuti ci waxtaan wi ndax professeur Iba bari Camara moom tim moom tim ma ngi ma ngi ñëw li nga xamante ni tey moo tax ñu invité leen bokk na ci li am ci réew mi actualité bi muy mbir mbiri Ousmane Sonko mais monsieur le ministre yow mbir mi ba mu commencé ba léegi dafa mel ni dégg guñ la si lu waral loolu. déet am na ñu ma ci laaj parce que demoon naa Walfadjri. rek ajjuma bi passé Mm-hmm. non alxames ci guddi def ko benn émission. Mm-hmm. waaw am na yeneen ñu ma ciy laaj itam nag yow yaa ma ci laaj yëgu tam. d'accord léegi euh, mbir mi ni mu demee euh, ak déclaration yi Ousmane Sonko def waaye bala ñuy egg foofu complot gi Ousmane ko wax mu nekk baat boo xam ne ñu koy wax bari na yow euh, lan moo ci sa xalaat ak ndax jàpp nga ne complot am na ci. waaw xam nga man dama def droit pénal spécial ndax maa ngi nekkoon contrôle économique. i nekkoon tam inspecteur euh, yoroon enquête économique dama prêté serment auprès du tribunal régional de Dakar euh, ci laa prêté serment donc damay defar ay procès-verbaux damay jàpp ay nit d'ailleurs je suis cru jusqu'à inscription de faux ci sama liggéey mooy ñun sunu sunu serment moom moo gën a euh, dëgër Euh, commissariat bi gendarme yi dafa corrigé suñuy jàpp parce que ñun mën nañ yegg foo xam ne mënuñu fa yegg donc nous sommes des auxiliaires de la de la justice ñun nag li ñu xam ci infraction mooy dafa am loi bi dafa wax des éléments constitutifs de l'infraction mooy nit ki suñ nee def na nangam suñu buggee xam ndax def na ko wala deful dañuy seet la mu def fee boobu euh, ban infraction la yan élément moo ko constitué donc kenn mënul di évoquer loo xam ne xewul foofu comme dañ ne viol la kenn mënta évoquer loo xam ne xewu fa kenn mënta évoquer loo xam ne démb la xewoon kenn mënta évoquer naan diw justice bi wala diw lii la waxal wala lii la defoon man li ma jàpp mooy fii mu toll nii bala cee nit a mën a prononcé wu dëgg dëgg dëgg dëgg ñi nga xam ne ñoom dañ leen a impliqué muy Adji Sarr ak Ousmane Sonko dañu waroon a dem ñu taxaw devant les gendarmes enquêteurs wala ñu dem devant le procureur de la république wala ñu dem devant le juge bi nga xam ne moom mooy instruire dossier bi su boobaa kenn ku nekk indi sa sa wax ñu évaluer ñoom seen seen jëf et sur cette base là la ñuy mën a wax lii moom la wala lële la yaakaar naa ne personne ne peut parler de complot kenn mun a wax aussi ne Ousmane Sonko yaa def kenn mënta wax itam ne Ousmane Sonko defuloo mais monsieur le ministre. donc ah oui. am na élément yoo xamante ni est-ce que bu si Ousmane Sonko sukkandikoo du jàpp ne complot la lu ci mel ni tey xale bu góor bi nga xam ne moo ko jëli woon ñu ne papa mu ndaw ci biir benn bokk yaakaar la nekk beneen bi tamit ñu jàpp ne li nga xamante ni moom mooy euh, am na benn avocat bu ñu siy tudd euh, am na benn médecin tamit boo xamante ni euh, ñoo ngi ko siy tudd mbir mi ni ñu ko accéléré. Euh, yu ak Adji Sarr mi nga xamante ni dañ koo daal di làq escorté ko ak enquête bi nga xam ne ñenn ñi jàpp nañ ne dañ ko nangu ci gendarmerie élément yooyu yëpp est ce que bu ko Sonko euh, dajalee wax ne complot la est ce que du yanu maanaam. non non élément yooyu Sonko ci ci yoonu ci droit ci droit pénal Sonko mënta man mënta évoqué élément yooyu ndax wax naa la ne su dee infraction la dañuy wax moom lan la def ñooy viol la moom fan la ko defee ak kan la ko def. donc loolu yëpp c'est des éléments subjectifs yoo xam ne kenn munu koo jàpp Sonko xamul lan lañ koy reproché fu mu toll xamu ko yow xamuloo ko man xamuma ko kenn xamu ko parce que soon ko bañ ko wooyee dafa waroon a dem devant les enquêteurs su demee ñu laaj ko ne koy yow su ñëwee ñu ne ko kaay mu ñëw ñu laaj ñu ne ko yow lii moo tax ñu woola suñ ko nee lii moo tax mu woola moom dana xam la ne ko reproché su boobaa dana xam la lan lay mais fii mu nekk nii moom man mënta wax yow munoo wax parce que demul donc Sonko lu man di wax rek euh, kenn mënu ko jàpp su fekkee ne ci yoon nga nekk sama lay jox exemple man bañ ma wooyee ci enrichissement illicite CREI yi ne croyais pas à la CREI gendarmerie ñëwee rek ma indi convocation ne ma Farba Senghor tu es convoqué pour une affaire te concernant ma xam ne su ma demul du ma xam la damay wooye ak kan may may woo ba ma ñëwee ba jàkkaarloo kii nga xam ne moo ko woo tey ki mu remplacé man moo ma woo mu colonel de gendarmerie ak équipe ba ma jàkkaarloog ñoom ñu wax ma ma jàkkaarloog ñoom ma présenté wu bi ma présenté wu ba pare ñu ne ma laaj ma fan laa dëkk ak fan laa jàngee ak sama ba pare ñu ne ma yow ñun ñii ki ñu yónni moom mooy CREI kon dañoo bëgg ñu laaj la yow ñaata nga man du ma leen tontu parce que man CREI waruma woo je pense que Sonko tam ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale dañ ko war a wax demal nga wuy ji loolu mooy yoon dafa bëgg dafa bëgg yore réew mi. mais Sonko su wujjee mais mais mais mais mais mais monsieur le ministre. oui mais monsieur le ministre Sonko pour euh, pour respect bi nga xamante ni war na ko mën a am ci ci yoon. ak ak mane ne Sonko. oui euh, su dee dafa nekk député. aw askan votel ko. oui ñu ne député kenn munu ko topp tànk ma ngi am malaanu kiiraayam. Ousmane Sonko mane ne Ousmane Sonko. waaw dafa nekk député. waaw su dee dafa wuy ji te dinduñu te dindiwuñu malaanu kiraayam oui Ousmane Sonko boobaa moom respecté wul yoon ma ne déglu ma wax la suñ la wooyee attends pour que action action publique mu déclenché wu alors le procureur est obligé de dire aux gendarmes woo leen Sonko une fois que am na ku ñëw soo ñëwee nga porté plainte soo porté plainte contre diw nga ne man day diw moom ma violé pour que l' action publique mun a mun a déclenché wu il faut que procureur bi day joxe dafa lay joxe ordre wala moom mu jël ordre moom moom mu ñëw mu ne la yow mii kat dañ laaj kaay nga ñëw toog ñu ne dañ laaj jiiñ viol donc le prof procureur dafa war a woo Sonko su wooyee Sonko ba gendarmerie ñëw ba si moom su Sonko ñëwee mu ne wuyuwuma wala Sonko wuyu su boobaa action publique day déclenché wu yoon day door a jóg ba de topp ko. mais yow mënuloo nga toog fa nga toog nga ne député nga mais Sonko woowoon nañ ko woowoon nañ ko assemblée nationale njëkkoon nañ ko fa woo bañ ko fa wooyee moom moo porté woon plainte n'est-ce pas ci affaire quatre-vingt-quatorze euh, milliards yi mais Sonko demuloon Sonko woo nañ ko police ci affaire quatre-vingt-quatorze milliards yi Sonko demul donc je pense que loolu erreur la ñu koy digal su fekkee dañ laa woo nga bugg a défendre man ah Pérez bi nga xamee ne ñu ngi bugg a dàq man ak Pape dañ ñoo woo ci commission ad hoc bi bu bu disciplinaire bi mais ba ñu ba ñu demee man Pape Samba Mboup man man man maa dem sax ma dem jàkkaarloo gars su ma ba ngoon ma ma joomal leen dañ ne kenn ba nga xamee ne ñu def plénière bi man woowuñu ma donc Sonko su demoon jàkkaarloo ak ah, kii bi gendarmerie. d'accord non dafa jàng ba ne ar. Mhm. dafa nekk un haut fonctionnaire du Sénégal Sonko dafa am xam-xam Sonko dafa xam luy procédure parce que waa impôt waa douane waa contrôle économique ñoom ñëpp dañoo jàng les procédures la su fekkoon ne Sonko alors dafa demoon est-ce yaakaar nga ne Sonko moomu benn xare boo xam ne mu ngi jógee ca àll ba mu ngi jógee ca gànj ba jàngul dara wala njàngam soriwul xamul dara mën naa yóbbu Sonko ca ah wala ko yóbbu ah day monsieur euh, monsieur le ministre euh, réseau bi mooy xaw a daw euh, mbokk yi réew mi FM ngeen di déglu pencum réew mi dañoo am ñaari invité yoo xamante ni dañoo nekk ci embouteillage bi di ñëw ministre Farba Senghor ak professeur Iba Barry kamara mane alo allo allo allo ministre Farba Senghor lañ doon jël muy ñëwaale ci allo. waaw réseau bi réseau bi mooy daw su dee da nga a bu dee da nga bu dee mën nga déplacé wu rek nga déplacé wu wala sa téléphone tuuti nga am noo ko def rek allo euh, euh, dafa nekk ci euh, ci ci embouteillage bi ma ngi ñëw professeur ba Bari Camara moom tim ma ngi ñëw ma ngi ñëw bu ko defee ñu ñu jëlaale ministre Farba Senghor waxtaane ak moom waxtaanaale ak moom bala muy bala muy yegsi ndax li ñuy waxtaane mooy lu jëm ci mbirum euh, Ousmane euh, mbirum Ousmane Sonko yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 dëkk bi nag euh, embouteillage bi waaw allo waaw monsieur le waaw dafa dafa récit bi moo doon daw sànq léegi yaa ngi doon wax ne xale bu jigéen bu jógee ci ci ci ci maanaam koo xam ne jàngul wala jàngam soriwul waaw waaw parce dama ne waaw est-ce que ak xam-xam bi mu am ak njàng bi mu am ak fi mu toll ci réew mi maanaam jiite parti nekkoon impôt jiite yàgg a def liggéey boo xam ne liggéeyu état la au au sommet dama ne xale boo xam ne jàngul dara jógee ci ay gajj bi ah am vingt ans est-ce que kooku mën na nekk ci seen ba pare ah dem dajeel Sonko ca juge ba wala ca gendarmerie mu tayre fa Sonko c'est pas possible Sonko su nekkee ci dëgg xale boobu warta ragal a jàkkaarloo xale bi parce que xale bi waru ko faa mën a tayre man loolu moom mooy son position son position mooy ñun nous sommes des hommes politiques tuuma moom kenn ku nekk lañ koy tegal waaye Abdoulaye Wade dafa waxoon ne heure boo xamee teg nañ leen tuuma na ngeen dem ngeen taxaw ngeen dindi tuuma mais bu leen nangu mukk di leen teg tuuma alors ngeen di daw seen responsabilité dem leen ngeen dindi ko loolu la ñu Abdoulaye Wade. d' accord ñun jàngal. d' accord léegi léegi donc xam naa am na expérience bu wóor. léegi monsieur le ministre may wax nii tey léegi euh, monsieur le ministre kon yow daal dàq nga complot bi. man dàq naa ne complot kenn mënu koo wax. te amoo les éléments yoo xam ne ñooy éléments yu wóor man mënu wax ne complot am na mënu maa wax ne complot amul. mais procès verbaux yi mais procès verbaux yi gis nga ko. ah nga ne mais procès verbaux yi gis nga ko quand loolu du yoon xam nga soo ko defoon France tey yéen ñëpp jël nañ leen jàpp nañ leen man je demande à l'état du Sénégal nañu jël ay dispositions nouvelles yoo xam ne kenn du am droit ngay divulguer ay procès-verbaux. mais ñene ko divulgué mais ñene ko ñene ko divulgué ñene ko divulgué. xaw ma ñan ñoo ko divulgué. ah waaw mais non non non. ma ne. yaa ngi laaj ñan la profité. waaw ma ne. nañu laaj ñan la divulgation bi profité. waaw d'accord léegi. man dama yaakaar ne ñi nga xam ne ñoom ñoo génne procès-verbaux yi. génne ci li leen neex. loolu di ko analyser li leen neex. mais ñoom la profité. d'accord léegi. léegi yow yow yaa ngi wax ne euh, tey bu doon réew mu mel ni France euh, jàpp nañu ñun ñëpp journaliste yi léegi. Eh, ñu ko génne waa non waa d' accord léegi amul droit génne un procès d' accord léegi. waaw xam nga ne xam nga ne yow ba ñuy ba ñuy déglu ba ñuy déglu aji Sarr. ak témoins yi xam nga ne journaliste nekku fa. waaw d' accord nañ ci loolu. d' accord nañ léegi yow leer na la kon bu dee génn na ci mbedd mi enquêteurs yeeg gendarme yeeg ko génn ci mbedd mi. ma ne munu ma ne gendarme yóbbee dama ne. waa mais parce que xaw ma ndax la ñu génne lu baax la wala lu baaxul la. waa non rien ne me dit que les procès boobu qu'on a sorti ce sont de faux wala de vrais procès. non non xam nga lu tax xam lu tax. mais ma waaw. damaa bëgg nga déglu ma xam nga yow. yow yaay journaliste bi. man ngay laaj pour ma wax ak peuple sénégalais bi. waaw yow da nga maa war a laaj ma wax ak peuple sénégalais dama ne la. les procès verbaux yi nga xam ne génne nañ ko tey jii. kenn mënta wax ne c'est des professeurs boo yu baax wala yu bon tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut dire nañu ay procès bo alors yoo xam ne gis nañ ko ci mbedd mi ñu ne procès-verbaux yi ñu doon interroger euh, Adji Sarr la mais dama ne en France ku ko fa defoon wala en itali wala nga def ko aux États-Unis jàpp nañ la bu yàgg doo doy parce que du yoon dañu war a respecter la justice dañ war a respecter les Sénégalais dañ war a respecter les secrets de l'instruction waaw. d'accord léegi monsieur le ministre. xam nga soo déggee. donc c'est précis voilà kenn mënu cee basé wu. ngay juger nit. moi je crois que li wóor mooy. que ce soit Sonko wala que ce soit Adji ñoom suñu amee ay éléments yu ñu opposanté dañ koy war a opposé devant le gendarme wala devant euh, le juge wala devant le de la République mais mënu leen di juger ni ci mbedd mi. d'accord c'est malheureux on est dans des pays tellement sous-développés. que dañoo bëgg di juger nit ñi ci mbedd yi ah, ci arbre à palabre yoon d'accord on a des justice justice dañu am ay kër dafuñu leen dañu am ay dañu am fu ñu dëkk dañu am fu ñuy wootee mais pourquoi ñu bëgg a juger nit ñi ci mbedd yi man ah. waxuma ne euh, Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg wala moo nekk ci fenn waxuma loolu man dama ne en tant qu'homme d'État en tant que spécialiste du droit pénal spécial loo xam ne dama koo jàng def il n'est pas normal que des procès-verbaux Euh, soit diffusé par la presse et soit à la de tout le monde loolu du yoon. d' accord Ousmane Sonko tam suñ ko wooyee dafa war a wuyu ji parce que son honneur ban loo laa xalaat mais yow mënuloo mënuloo heure bi la wooyee nga ne doo wuyu ji. waaw d' accord léegi man su ma ko doon digal su ma ko doon digal dama naan ko soo nekkee ci dëgg da ngay dem nga jël dëgg nga gàddu ko nga xeex ak dëgg. accord léegi mbir mi day yomb ci yow. léegi monsieur le ministre. oui. waa léegi man tamit dama laa bëgg wax sama li ma lay laaj wala li ma la bëgg a wax ci li nga tontu ci procès-verbaux yi. xam nga gendarmerie. képp ku leen tuumaal ne procès-verbaux yi procès-verbaux yu gendarmerie la. seen cachet nekk ci. te du te du te du procès-verbaux yu gendarmerie si sensé la ñuy génn communiqué woo ñi nga xamante ni ñoo ko divulgué. waaw dama lay waxal. waa xaar ma yeggale. même su dee dee de vrai procès-verbaux la. même su dee de vrai procès-verbaux boola ñu génne ko ñu ko génne waruñu ko génnee. waaw d' accord naa loolu c'est ça qui n'est pas normal. la loi ne l'admet pas. mais d' accord naa mais d' accord naa mais d' accord waaw dama ne. waaw pourquoi yow waxoo ne les deux parties nañu dem devant les tribunaux su ko defee ñu xam kenn ku nekk lañ lay reproché pour que sénégalais yi mën a am. ah une vue très claire. ah de euh, li ñuy euh, li ñuy reproché Sonko. mais lan moo tax ma nga bëgg ma wax léegi lan moo tax nga bëgg ma wax loolu loolu lu tax may wax loolu. waaye mais lan lan moo tax tam yooyu tam nga bëgg tam man ma gëm ma gëm li nga gëm. waaw d' li nga gëm ma gëm li ma gëm. parce yàlla wax ci alxuraan. waaw d' léegi nee kenn ku nekk nañ ko nañ la bàyyi nga gëm li nga euh, léegi ma ne bëgg ma loo yow nga d' accord ma ne. waaw gis nga gendarmerie nationale. waaw. bi ñu leen waxee tuumalee ci ci euh, bi ñu leen tuumalee. man waxuma li gendarmerie di xalaat dama ne la man je ne je ne pas ce que la gendarmerie di xalaat je ne sais même pas de savoir dama ne la man sama xalaat mooy li loi bi wax man sama yoon nekkul ci gendarmerie li muy xalaat dégg nga. waaw d'accord mais li wax laa lay wax man. xoolal man da ma ma ne man d'accord man man xam naa ne fësal bi du yoon. mais man leer na ma mais leer na ma leer na la yow ne biñ leen di enquête journaliste yi nekku fa kon bu dee am na ñenn ñu ñuy wax gendarmerie gi nga xam ne ñoo ko jox journaliste yi ñooñu la ñu war a waxal. ma ne. waaw dañu romb loolu nañ dem ci les faits. d' accord léegi parce que loolu. léegi boo ko war a lijjanti. waaw d' accord léegi yow léegi Ousmane léegi. boppam waaw d' accord ko du yoon. waaw d' accord léegi. c' est ça du yoon. yoon. waaw d' léegi nañ ñëw ah? ci nañ ñëw ci immunité parlementaire Ousmane Sonko léegi. oui dindi nañ ko assemblée nationale. moom nee na procédure bi jaarul yoon. oui bu ñu ko wooloo di wuy ji. oui lan moo ji sa xalaat. xam nga ma ne Euh, gendarmerie euh, disons ci euh, assemblée nationale assemblée nationale ci boppam dafa nekk moom ak exécutif bi ak ak judiciaire bi kenn ku nekk danga nga nekk à part allo. waaw maa ngi lay dégg waaw maa ngi lay dégg baax. kenn ku am à part da nga nekk à part kenn ku nekk da nga am sa domaine. loi bi nga xam ne moom la ñuy àttee gendarme ci euh, assemblée nationale. Mm-hmm. mooy son règlement intérieur. Mm-hmm. le garant du fon du bon fonctionnement. Mm-hmm. et de l' application de du règlement intérieur. kooku mooy le président de l' assemblée nationale. moom suy jooytu. suy jooytu ndax loolu dëgg la wala du dëgg. dafa war a dem. mu jooytoo ko ci biir assemblée nationale. mais nekkul ne. Mhm. ci mbedd yi lay taxaw. mais wala mhm. ñaay nee na kuy mhm. war a fekkee ji. Sonko su fekkee du fekkee dara du am benn mooy pour défendre. waaw. d'accord su fekkee du fekkee dara. waaw ah. nu muy défendre <laughs> ah waaw mais monsieur le ah. ministre. oui waaw mais euh, Ousmane Sonko. Euh, demul assemblée national mais moom jàpp na ne procédure bi jaarul yoon wax na ko ay avocat mais mun xam lu jaar yoon lu jaarul yoon lay jaar yoon président bi de l' assemblée moom moo koy wax. Mhm. Mhm. la wax. Mhm. moom mënu ko dafa war a war a dem. su demee. mu mu mu fekkee mbir Mm-hmm. mais yow demuloo ba pare ngeen affaire fa nekk du yoon nooy xamee lu du yoon. ah mais am na mais am na fay mais mais am mais jot nañ dossier bi que ne procureur si boppam contre X la wax euh, la wax euh, assemblée nationale pour ñu dindi malaanu kiraayu contre X te X amul assemblée nationale. mais ma ne Sonko. waaw kenn du blé d' accord d' accord maa ngi jégalu. non lu baax na baax na. <laughs> macha allah eh, kontaan naa nag ci ci ci macha allah non man tam kontaan naa ni nga jëlee affaire bi xam nga il faut du progrès dans dans nos waaw il faut ñuy si dëgg la la woon démb rek. Mhm. alors dañ koy romb. waa dëgg la yàlla yàlla def na am nga xelu. waaw xam ne retard am na man ak suñu waa ji. nga dem léegi ne naa la woo. waaw ngay ñëw euh, TFM defoon na ma ko. Babacar Fall un jour. donc je crois que nit ki dafa am xel. lu ñëw dafa war a nekk à la hauteur mm-hmm. alors pour mu mën koo di am solution mm-hmm. voilà géej géej ba maa ngi baloo wax nag yéen dalal tuuti kon mbokk yi ma ngi noonu ñu leen di jaajëfal euh, bu baax a baax euh, yéen a ngi ci réew mi FM seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h jàpp 16h tey nag ñu invité euh, monsieur le ministre Farba Senghor ak ki nga xamante mooy professeur Iba Barry Camara professeur ma ngi ci yoon bi ñëw doon naa ko woo sax mais moom nee na xam naa mënul dawal ci embouteillage bi ak yooyu waaw non mais <laughs> mais kontaan nañ nag si si si ñoom mais mais monsieur le ministre mm-hmm. Ousmane Sonko nag assemblée nationale yow assemblée démb rek gis nga lu lu dul yoon li nga xamante ni tey euh, def nañu ko. Mhm. waa euh, def nañu ko. Mhm. mooy li nga xamante ni tey euh, mooy de amal li nga xam ne mooy plénière bi. Mhm. te te te te te journaliste yi fekke ko xam nga loolu rek kenn xamul lu mu. non xam nga journaliste du ñu dugg du ñu dugg. du ñu dugg fa ñuy àttee. journaliste du fa dugg. parce que dañ ne commission ad hoc. dañ ne ne plénière. suñ nee plénière. Mhm. c'est plénière bu ñu def à huis clos. Mhm. c'est destiné aux députés. Mhm. suñ nee suñ nee ad hoc. que ñi nga xam ne dañ cee bokk dañu leen a xam ne mooy diw mooy diw compter ko ba ne nangam ñi ñoo ci bokk. donc foofu journaliste amu fa yoon. suñu paree suñu génnee nag mën ngeen leen a laaj ñu wax leen mais loolu ça ne en rien ci procédure bi doo entaché benn yoon ci la nga xam ne moo fa xew benn irrégularité. boo xam ne bokkul ci procédure bi. alors mënta yàq mënta yàq. dossier mais yow mais yow Ousmane Sonko li mu wax ne moom euh, jàpp na ne procédure bi jaarul yoon tax na moom ba léegi ne li mu gis daal mooy ma ak malaanu kiiraayam bu ñu ko wooloo du du wuy si. Euh, taxawaayu Ousmane yooyu xam nga xam nga loolu. nga baal ma c'est du dilatoire. comment parce que mënuñu la woo devant le gendarme nga ne doo dem. ñu woo la euh, à l'Assemblée nationale yow nga ne doo dem expliqué woon naa la déjà ci Assemblée nationale. Mhm. ba ba nga ne yaa ngi sa sa malaanu kiiraay te fekk ñu dindi koo pare. assemblée moo koy dindi moom peuple bi ko pëli fale dañ ko yóbbu ba assemblée. Mhm. ñu dem assemblée ñu def séance. Mhm. daal di dëggal député am. Mhm. daal di dëggal cër ba kenn ku nekk nga am ci biir assemblée nationale. donc ñooña te te te affaire u àtte biir assemblée règlement intérieur bi moom moom moom ci la ñuy base pour àtte un ah, président président de l' assemblée wax naa la ne la mooy ki nga xam ne. moom mooy garant Euh, nii assemblée bi di fonctionner foofu. Mhm. donc moom mooy wax naan as article nangam ak nangam ak nangam. Mhm. donc moom Sonko mën sa toog këram fa mu toog. Mhm. mu bugg ne voilà parce que ñëwuma. wala parce que am na ñoo xam ne ci onze yi am na deux yoo xam ne ñëwuñu te on sait que ils l'ont ñoom bugguñu woon a ñoom ñoom ñoo génn. ba ñu demee dañoo dugg. mais est bu ñu génnee. Ah. amul lu règlement bi wax que ne euh, président groupe parlementaire yi ñoom ñooy demaat tànn yeneen euh, ñu remplacer ñooñu. déedéet ku génn ñëwul yow soo def examen soo génnee nga dem. d'accord soo ñëwul. non ça n'empêche pas que l'examen continue. non examen vraiment exemple boobu nga joxe peut-être mën na wuute lool ak euh, li xew assemblée. non mais non attends attends ma conclure foofu. c'est-à-dire xam nga li bañ dañ nekk ci infraction comme ci infraction lañu nekk man dama yaakaar ne yéen seen devoir comme ni ngeen euh, invité tey le professeur pénal mhm. bi nga xam ne droit pénal la nekk mhm. mooy mu expliquer leen mhm. lan mooy infraction quels sont les éléments constitutifs de l'infraction mais ngeen di wax affaire yoo xam ne subjectif c'est en dehors même de la procédure bu ko indi pour que loolu nekk irrégulier mais li ñuy wax loolu mënut a nekk xam nga ñeneen ñu koy wax ñoom professeur ñii ñu koy wax même bien avant euh, émission bi dañ leen di woo ay extrait ci ay professeur mënu la wax loolu non mais mais professeur mënu laa wax ne léegi non damay jox exemple rek waaw d'accord d'accord léegi euh, professeur d'accord léegi professeur euh, ñoo ngi jégalu ci embouteillage yi professeur euh, Iba Barry maa ngi lay nuyu Eh, di la ziar yàgg naa la dégg si rajo bi mais ñoo ngi doog di gisante. waaw macha allah alhamdulilah Abdou Khadre maa ngi leen di ziar. Uh-huh. Eh, xam naa dëkk bi moo xaw a xat. Eh, woo dëkk bi xat na fu mu nekk tey jii dugg na ay koñ yoo xam ni xaw ma uh-huh. ne sa existé na Sénégal pour rek venir mais bàyyi bàyyi ma ma uh-huh. nuyu en fait euh, Serigne Farba Senghor. Ah, nit ku baax en fait ministre et ministre même ah. ñu ngi lay ñu ngi lay ziar en fait di nuyu seen mu seen auditeurs yëpp. d'accord ah parce que thème bi ngeen di débattre nii dafa nekk thème boo xam ne bii. dafa xew ci jamono. d'accord léegi euh, professeur euh, bala ñuy ñëw ci li nga xamante ni tey moom la Ousmane Sonko euh, soulevé que ne procédures yi normalul tey usman Sonko li ñu koy tuumaal et tout ça dégg nga ko procès verbaux yi sànq maa ngi ci doon wax ak Farba Senghor dañu gis ne procès verbaux yoo xamante ni tey njort nañ ci genre gendarmerie la jóge euh, wasaaroo ci place publique bi euh, yow loolu lan nga si lan moo ci sa xalaat ak lan la ci yoon wax. waaw en vérité euh, sur cette question précise li ñu si mën a wax mooy lan moo di que ni dégg naa bi muy ñëw maam parce que maam man la ñu déglu. Ah. li mu wax en réalité euh, c' est effectivement cela. te que Sénégal c' pourquoi lorsque une personne jóg ne man véritablement jeune n'ai presque plus foi en notre en fait il faut également ñu comprendre cette personne là parce que normalement PV yoo xam ne yii dafa am dafa am su fekkee ni loolu la loo xam ne dañ ñëw toog foo xam ne bii enquêteurs yi ak kiñ doon entendre rek la. Mhm. ñu ñëw diggante procureur rek euh, en fait enquêteur bi la. ñu dem ba affaire bi mel ni en fait euh, nu mu titi quotidien réew mi FM. Ah, ah, ah. affaire réew mi. waaw non si noo rëmbe réew bi. Mhm. ce n'est pas normal. te gis loolu noonu. c'est la faute de qui mais non mais non non en fait non il en fait ma déterminer kan mooy fautif bi kan moo ko def mais xam lan la infraction la te fu mu nekk nii le procureur devrait s'autosaisir comme le jeu, comme le bâtonnier le bâtonnier donc de l'ordre donc euh, muy de muy des avocats waroon également apporter ay sanctions parce que avant même que muy jël mesure comme quoi dafay intervenir yi nga xam ne ñoom ñoo constitué wu ñu nekk ci rajo yi di wax nu nekk en fait euh, mais avant boobu mais on a vu donc ay avocats yoo xam ne ñoom ils connaissent bien la loi xam nañu baax article onze donc euh, code de procédure pénale xam nañ loo xam ne lii am am na ñoo xam ne du ñu ko def mais dañu ñëw toog si tele yi si rajo yi mais di wax ay éléments yoo xam ne nii. donc pour un dossier kii mais quand ah, même. non moi je dis que Sénégal kaay ma wax la néewuma kii néewuma kii mais en tout état de cause kii dafa war a nekk loo xam ne lii. ah une bonne fois pour toutes le procureur devrait s'auto s'auto saisir et puis ñu def ay investigation pour que affaire yi dakk parce que gars yi ma wax la du rek tey affaire bi man bi moo ko yàggee fustigé ça fait maintenant plus de six ans wala sept ans man ne lii c'est pas normal loo xam ne lii affaire seen mais da ngay lire yi mais journaux yoo xam ni kay ma wax la li nga xam lii moom moo doon euh, moom moo xew PV yi. Ah, ah, mais moom la ñuy récupérer jox la. Ah, mais loolu noonu kay ma wax la kooku noonu xaw ma nous avons donc euh, muy des mu des mu des autorité nous sommes dans un état organisé un état très moderne donc am na yoo xam ne yi dañ si war a veiller. parce que xam nga ay affaire yu ñëw di bàyyi benn affaire bu ndaw bu jàll day dem ba yàgg su yàggee dafay indi pëccëxoo day jaxase réew mi am na yoo xam ne il faut s'arrêter parce que aujourd'hui au Sénégal avec avec moo tax man je même pas me prononcer ci affaire éléments yi nga xam ne affaire moo nekk si PV yi ñi ñi koy wax mais man du ma ko lire yàlla xam na ko ñu dañ naan ma est-ce que ça man leen su fekkee ni loolu la mais man je veux même pas en fait prendre connaissance de ça parce que je je considère que l'instruction et l'enquête là en fait elles sont secrètes d'accord léegi euh, professeur li nga xamante ni tey moom mooy euh, moom mooy viol yan élément la la viol la ñuy wax ne kii dañ ko violé waaw xëy na loolu noonu en fait euh, mën nañ si kii pour jeg jàngat jàngal nit ñi mais en tout état de cause en fait. Euh, même bu dul ci cas bii. non non moo lay ne dinaa ñëw dinaa ñëw dinaa ñëw dama ne euh, même su fekkee ni affaire du euh, donc donc kii bi il appartient au juridictions de jugement ñoom rek mën a wax est viol am na est-ce que viol amul parce que viol infraction la donc viol xam ne mooy lan mooy nga jàpp nit en fait ñëw sàkku ko ci anam bu ne nga sut ko lees napp ko ëpp ko doole. wala nga nax ko wala nga bett ka ah ba def moom noonu nga war a nga bëgg def moom te moom te c'est c'est là c'est l'élément important te moom d'accordu ca xam nga euh, consentement boobu tout tourne autour donc de cette notion là de consentement mm-hmm. moo tax ñu ne vol dafa euh, viol dafa nekk affaire bu doy waar fi mu nekk ni nit ki mën na ñëw sax ne la d'accord naa te d'accord ñu séq mm-hmm. ngeen dafa pare mu ngi gën ne d'accord loon def nga ko mais naka la ñuy këri d'accord na wala d'accordul moo tax man na gis a viol su fekkee ni nekkul un cas de de flagrance ah man loolu laa ma soutenir plus ñuy dem plus ça sera difficile d'établir la véracité donc de, donc donc de ces faits constitutifs donc de viol. mais mais est-ce gis nga euh, dossier médical bi ñuy bi ñuy bi ñuy. du ma ko bëgg a gis. d'accord léegi euh, beneen beneen laaj bu gàtt rek mooy Ousmane Sonko. Hmm. déclaration bu njëkk bi. Hmm. Euh, bi mu defee déclaration ñenn ñi dañu jàpp ne dafa def appel à l'insurrection appel à la violence euh, ba am na xale yoo xamante ni doon nañ def ay manifestation bañ jàpp leen seen dossier bi sax ñu ne procureur daf ko criminaliser déclaration boobu Ousmane ko defoon ñenn ñi jàpp nañ man mën nañ koo toppee ci leneen lu weesu tuumaay viole bi est-ce que yow jàpp nga loolu. waaw euh, mon cher Abdou Khadre c'est xam nga dañu nekk si réew moo xam ne bii léegi rek si plateau benn benn télé fa laa ko xam nga nit ñi. il faut que ñu dawal seen diggante yërmande. Mhm. ak li ñu naan lan ak compréhension. parce que xam nan la euh, euh, kii bu ko waxee doonu euh, Sonko bu ko waxee noonu man est-ce que Iba Camara ah su fekkoon ne man maa nekk place sunko en fait ma en fait man la concerné affaire bi naa ñëw di waxee noonu mu waxee mais fu mu nekk il faut il faut qu'on se pose la question kan moo wax c'est Ousmane Sonko te dafa ne moom dafa en fait il sait et c'est vrai il représente quelque chose fii Sénégal. pour nga nag en fait euh, nu mu tiriti euh, pour ay droit wam ah ñu ñëw ko en fait moom su fekkee ne estimé ne que ne conditions yi mettre luñ ko pour effectivement affaire yi mais affaire yi jaay mais dafa naan il faut que ngeen protéger ma parce que kaay ma wax na nag Sénégal dëbuñu rek mu nekk mu nekk Sénégal dafa yàgg am ay précédent moo tax ma ni man su may apprécier boobu li mu wax du ma ko apprécier en tant que nit en tant que un simple citoyen par rapport à nos kan la c'est l'homme politique qui parle moo tax donc de ce de ce point de vue ñuy wax en fait insurrection c'est vrai que c'est vrai que le euh, euh, donc appel bi c'était un peu fort parce que mënoon na nekk loo xam ne lii mënoon na déstabiliser mënoon indi problème mais nag insurrection insurrection soo koy wax kooku nag il faudrait réfléchir nag quand même xam nga ak lu ñu bëgg a qualifier qualifier hmm. insurrection nekkul loo xam ne nii da ngay woo nit ñi ne leen taxaw leen hmm. insurrection su amee mooy di kenn c'est l'état même qui serait en péril institution yi dara la dara laal du dox moo tax ma ni bu ñu nekk jusqu'au boutiste ñëw ka non nañ re nañ euh, indiwaat yëpp ci li nga xam bi noonu la. d'accord léegi dindi nañ malaanu kiiraayam nee na du wuy ji. Hmm. Ousmane Sonko ndax nee na procédure bi jaarul yoon. lan moo ci sa xalaat. waaw kooku nag nga Euh, lu mu métti métti métti métti moom avant d'être politicien avant être en fait d'être un homme politique c'est un citoyen et la loi c'est la loi c'est ça le problème quelle que soit la situation lui en fait euh, il sera obligé mu dem wuyu ji si bu mu koy neex si bu mu koy naqadi parce que léegi toll nag foo xam ne fii il faut que ne tuubaal nañ ko quelle que soit la situation jox jébbal nañ dossier bi koo xam ne kii moom moo ëpp doole ma ni moo ëpp doole police moo ëpp doole procureur kooku su ko ñëwee woo nag kaay ma wax la dafa war dem wuy ji mu déglu ko mhm. kenn neewul ne nag déglu bi en fait euh, lan la euh, dañ daan ko yow la wala lu yow wala dañ koy placer mais man soo déggoo discours am deuxième discours am bii moom xam nga lan la lan lan la craindre tiitul ñu jugé ko mais xam nga lu mu tiit ci balaa ñu parce que xam nga xam nga euh, fu mu nekk nii euh, il est libre mën na organiser donc sa défense mais su ñu demee par exemple ba mu déglu ko ah le juge d'instruction na koy mais en tout cas il y a des indices yoo xam ne yii permettre ma ma bàyyi la kii dama lay placer nit ku ñu placer tu perds ta liberté privation liberté la. te bu dee viol mën na yàgg aussi. Ah, mais c'est ça parce que crime la. d'accord. jërëjëf euh, professeur euh, Iba Barry Camara euh, Rewmi FM ngeen déglu léegi monsieur le ministre Farba Farba Senghor Ousmane Sonko moom nee na du du wuy ji ndax moom dafa jàpp ne li nga xamante ni mooy procédure bi jaarul yoon est-ce que jàpp nga ne instant bi gi ginnaaw mën naa amaat ci mbir mi wala yow lan nga jàpp ne mooy solution bi. waa maa ngi nuyu d'abord professeur di ko gërëm bu baax a baax. Uh-huh. parce que c'est un professeur émérite émérite. ñëpp uh-huh. xam nañu vraiment dañuy koy déglu les jours muy wax. Euh, yàlla def na lu bari bi nga ko waxee ñun ñoo ci bokk ba nga ma laajee dama la ne. Mhm. man mënu maa wax ne euh, Sonko moo tooñ. wala Sonko tooñut wala moo def wala defut. Mhm. ma ne la yow mënoo ko wax keneen mënoo ko wax. Mhm. kenn rek moo ko mën a wax mu wax ko devant gendarme bi wala procureur wala mu wax ko devant le juge. loolu mooy problème bi c'est-à-dire que affaire yi infraction itam euh, la nga def danga nga violé comme ni wax ndax tëdd nga wala tëddloo moom foofu lañ koy kii li wax tamit viol lu naqaree cerné la. Euh, fan yi rek ñu ngi ñëpp ko doon suivre affaire Tron bi nekk en France il a été secrétaire d'état la woon secrétaire d'état la ba pare maire la ba pare professeur la buy jàngale mu am benn xale boo xam ne nekkoon na élève am ay 2004 yooyu la commencé xale bi ni da doon tëdd ak moom ba ay 2011 mu door ko yóbbu dans les tribunaux bi ñu ko jugé daaw ñu bàyyi ko parce que ne voilà y a pas d'élément mais bi ñu ko jugé ren. dañ ko tëj dix ans xaw ma six ans parce que ñu ne comme maire bi la woon nekk professeur am dafa am ascendance ci moom. mais loolu que sukkandiku mais waruñu sukkandiku foofu kese non non bul wax waruñu sukkandiku dama la la wax li xew. Mhm. dama la wax li xew waxuma la yow du yaa koy jugé wala du man maa koy jugé da ngeen di bàyyi dugal seen xol seen xol xam nga soo demee en Europe. <laughs> ñi nga xam ne ñooy animé débat yi chaque télévision chaque organe dafa am un dafa am koo xam ne da nga nekk un genre médiateur. su kii waxee man ma wax day seet li nga xam ne moo ci enu maana mu def ci synthèse bi li nga xam ne bokkuñu ko bokkuñu ko li mu ci mën de juger mu bàyyi ko ñu ñuy déglu mais du nit du wax rek la xew France nga ne nga ne loolu du yoon noo xamee ne yoon la wala du yoon te yow nekkoo France waaw non donc léegi dañ ko ci liñ ko tëjee loolu lañ ko tëjee te rëccoon naa mais mu dem appel ñu tëj ko parce que dañ yaakaar ne comme nekkoon na maire te mooy maireu xale bi mooy dëkk bi quoi moo ko jiite ba pare nekkoon na professeur dafa am benn poids bu muy am ci moom tax ñu tëj ko. mais kon mais kon ñëpp nekk en sursis. noo dama la bëgg a wax ne la góor ñëpp nekk en sursis. non non attends attends non si mais monsieur le ministre xam nga li nii dégg ma expliquer rek xam nga li nga wax nii mooy que. kan léegi góor ñëpp mën nañu nekk en sursis ndax léegi nit mën na liggéey ci benn benn entreprise benn xale bu jigéen toog a toog toog ba mu neex ko mu ñëw ne sama patron woon wala sama euh, professeur nangam daf ma violé wala nangam loolu c'est trop facile. moo tax gis nga euh, euh, monsieur le ministre Balma. ce que moo tax gis nga viol bi bi ñu demee réformer ko bi amee réforme bañ ñu ne léegi crime la euh, nu mu seeti euh, kiiwu magistrat yi EMS duñ jóg jóg ne eh mhm. magistrat yi daf leen attention mhm. parce que xam xam nga dafa nekk loo xam ni dafa sens bi dafa garaaw trop mhm. parce que en fait on ne peut pas dire que ni sa wax la contre sama wax du loolu mais c'est que juge bi maintenant est-ce que concrètement am na ay moyens pour établir que ne am na wala amul loolu moo tax ma ne la affaire boo xam ni la dafa sensible te nag il faut jamais oublier que en en droit pénal euh, le doute profite toujours à la à la à fait à la à fait à l'accusé donc c'est-à-dire à la à fait à la personne poursuivie c'est-à-dire que man loolu noonu comme li ma wax léegi nag yoon moom moo koy moo moo koy def mais dama am fenn foo xam ne dama fa bëgg a rebondir c'est que xam nga au Sénégal c'est vrai que nous avons de très bons textes mais xam nga ne texte lan la du rek texte bind bi texte bi du rek texte bind texte xam la lan la inspiré d'abord ba pare nit ku nekk yow ñi nga xam ni yow yaay autorité ni nga koy appliquer nga boole ci yërmande ak morale xam nga déontologie ak éthique dafa baax ci nit bu ne. gis nga fu mu nekk nit koo xam ne bii bëgg na. yow parce que yow Abdou Khadre neexoo ma wala mais kay ma la et puis kooku dañ koy mais dañ koy dañ koy dañ koy gis partout y a parfois mais da ngay dem jànkuwante ak justice mais parfois xoola mais yow ta tête neexul kii mais kooku ni mu lay traité ak ni mu traité keneen du benn. d' affaire de nit la. moo tax ma la il faut nit ñi téye ca. d' accord léegi euh, monsieur le ministre léegi Ousmane Sonko nee na du wuy ji euh, léegi lan nga jàpp ne moo ci nar a am. waaw dama jàpp ne comme ni ko waxee alors. mais du wuy ji fu ko teg loo nga jàpp. waaw xam nga loolu. man sama sama gis-gis fi mu ko d'abord le professeur moom ci laay wax citoyen la d'abord avant muy nekk Ousmane Sonko et nul ne peut se de la loi quel que soit statut bi nga am ci biir réew mi waaw parce que gis nga yow ay ay ay candidat euh, élection française mm-hmm. ñoo xam ne lu ñu leen daanee ay ay emploi ay emploi fictif mm-hmm. ancien premier ministre xam nga ko am na ñoo xam ne tam de haute fonction la am ñoom DSK ak soo demee États-Unis ñoom Bill Clinton ak ñoo ñëpp léegi sax la gën a garaaw parce que léegi gis nga fi dégg nga taayale li ñu doon wax kenn ku nekk ku la neex nga dénoncé ko bind ko. Mhm. ba tax na léegi soo demee France ak France actuellement wala pays européens yi affaire yu viol rek ngay dégg ak sàkku na ma loolu. loolu yi rek yi li ngay dégg yëpp muy lëmbay réew yooyu loolu la te ñëpp dañuy poussé pour ñu jàpp la. d'accord ah, may ma may ma ma ba ñëw foofu am na réew yoo xam ne sax. dañuy def léegi association yoo xam ne soo amee problème mu viol ci benn réew rek dootoo fa dugg soo fay dugg gars yi jóg taxaw am na léegi fàtte temps yi donc moo tax Ousmane Sonko dafa waroon a fexe ba mu def ndànk mu teey man su doon man la du ma yegg si fii sax parce que xaj na da am droit boo xam ne droit ba mën nga ko utiliser waaye man nga ko bañ a utiliser soo buggee nga yàlla suturaal la ndax mënoon dem wuy gi gendarme yi ñu déglu ko mu wax après mu conté mu continuer combat am su ko juge bi ñëwee mën na wax loo xam ne dafay convaincre juge bi wala mën na wax loo xam ne dafay convaincre gendarmerie nee naa la fii man. bañ ma woo amul confiance ci ci. non xam nga nag xam nga nag kenn mënta ñàkk am confiance ci ñëpp. mënoo ne da ngay wut réew ne amoo confiance ci dara xanaa xanaa yow da ngaa bëgg a ñëw rek falax réew mu daanu ëllëg kon fan ngay jaar pour jot réew mi su fekkee ne yow wóolu woo la fa nekk fan ngay jaar pour jot réew mi dama ne Ousmane Sonko man gisuma wékkul fenn ne. moom du dem wuyu juge bi parce que wuyuwul si ma xalaat juge bi muy def dana ko convoquer régulièrement ne ko bés sàngam heure sàngam ñëwul mu koy xool ñëwul mu constaté ko su ko constaté pare da koy def man mandat dama ne dama ne indil ma ko te su boobaa dañ koy indi dama yaakaar ne kon moom fi mu ko wéeg dafa yaakaar ne peut mën na yëngal sur le plan politique surtout ba gaañi arrière wala man daal. wala wala wala euh, ministre mu ñëw alerte parce que xam nga la. voilà fu mu nekk moom. Uh-huh. xam nga lan la bëgg dafa bëgg woo. les sénégalais à témoin. Hmm. mais man je suis convaincu que ni. dina dem dina dem de su ko kii bi. dina dem wala wuy ma su ko juge bi kiiwee. Hmm. dina dem dina dem parce que mënut a ñàkk dem parce que ce n'est pas pour rien que mu am en fait euh, avocat yooyu et puis avocat yooyu xarit la am mais xam nga lan la léegi nii dañ nekk dossier boo xam ne bii. léegi nii moo tax euh, l'autre jour dama ko doon wax sama benn xarit ma ne ko kaay ma wax la de droit bi xaw ma kañ leen ko xamatul woon waaye Sénégal yi léegi le Sénégalais lambda de mm-hmm. plus en plus ñi ngi xam seen i ak ak seen i ba nga xam ne bii gis fu mu nekk nii ñëpp léegi ñu ngi jël seen bëgg ne ko jàkk si li police yi def ni gendarmerie def eh, ni procureur yi def ak ni juge d'instruction def loolu nag dafa baax si réew mm-hmm. parce que koo xam ni kii yow Euh, ñëw ne nga su ma defee même su ma defee naka su noonu sax dara dara du ma si fekk loolu neex nga def. mais mais waaye soo ñëwee xam ni. yow nit ñaa ngi lay surveiller. waaw mais moom mais mais mhm. Ousmane Sonko dafa récuser euh, ay avocats dañoo bind. premier non attends attends attends avocats yooyu dañoo jàng droit dañu xam droit man gëw ma ne avocats yi su ñu nee ba ci cëppaandarga dañ bàyyi Ousmane Sonko ne ko toogal sa kër gars ñëw pam pam la yóbbu la te xam ne Ousmane Sonko su amul force boo xam ne peut-être que. dana mën a tere loolu su fekkoon dafa amoon force boo xam ne loolu dana ko mën a tere je pense que mun na am ascendance awokaa avocat yi muy leen bàyyi leen ma rek man fii kenn mënu ma fay jëlee. mais moom jàpp na rapport de force. kana loolu moo. non boobu peut-être que dafa surestimer moom boppam waaye gisoon nañ fi Ablaye Wade ñu jàpp ko fii ñun ànd ak Ablaye Wade ñu jàpp ko dugal ko ci euh, kii bi euh, nu tuddu ci oto bu weex yooyu. 4-4 bii. Mhm. ñu dem Sandaga dañu ñëw jàpp Ablaye Wade dugal ko foofu te bu dañu yaakaaroon ne kenn mënu ko kenn du ko jàpp. Idriss Seck jàpp nañ ko yóbbu ko. xalifa mhm. Sall jàpp nañ ko yóbbu ko. Karim jàpp nañ ko yóbbu ko li professeur wax rek mooy reeteet bi alerte bi coow bi ba nit ñi dégg la mais final ca fin ba doole yemul. d'accord léegi euh, professeur euh, dama euh, dégg avocat yi Ousmane Sonko ñoom bind nañ premier président cour d'appel bu Dakar ka ne ñoom ànduñu ci ci ci juge Mamadou sekk mu mu àtte leen ce que loolu yoon la. loolu loolu loolu yëpp mën na ne. xam nga fu mu nekk nii kay ma wax la citoyen kay ma wax la de dañ naan justice rek ñëpp xam nañ nii euh, procureur si procureur laa commencé procureur dafa dafa am doole juge d'instruction dafa am doole kii dafa am doole mais kay ma la citoyen tamit am nañ doole parce que yoon jox na leen en fait li ñu naan ay voies de recours li ngay wax ne récusation voie de recours la su fekkee ñëw indi nga ay éléments tangibles comme mmh. que ni yow amoo confiance kii que ni effectivement dina appliquer comme il se doit la règle de droit mais mën nga saisir son son monsieur supérieur wala le président donc euh, kii bi juridiction bi nga ne ko kii bugguma mu correct sama affaire parce que wóoluwuma ko et pour réserve mais nag doo ñëw rek taxaw ne kii wóoluwuma ko rek ñu ne non wóoluwuma ko jeex na non non non il faut nga indi li tax en fait euh, parce que xam nga juge quelle que soit la situation da nga war a en fait euh, da nga war a respecter li ñu naan bu neutralité ak principe bu impartialité. Mhm. léegi su fekkee ni y a des risques pour que yow effectivement principe yooyu nga violé ko su boobaa yow sa bopp avant ñoom même ñu lay récuser nga xam ne yow yaa ñëw taxaw di juger ki nga xam ne kii mooy sa rakk. Mhm. koo xam ne kii mooy sa yaay mooy sa papa wala sa bokk bu jege yow nga war ko juger yow sa bopp balaa ñu ale la kii da nga war dem taxaw ne ko noonu la bàyyi naa. c'est ça le problème maintenant su fekkee nag yow defoo ko mais su boobaa. su boobaa en fait euh, ñoom euh, l'autre partie bi nga xam bi moom mën na estimer ni que ni euh, mën na nekk victime violation principe yooyu mën na dem ne effectivement. ñu récuser xam nga problème bi am. waaw ah. xam nga Sonko li mu attaqué directement magistrat yi nañ jàpp ne dafa nekk outrage à magistrat Abdoulaye dafa dafa ñu wax ne erreur la mu ne yéen ñi leen di juger bu leen fexe mukk ba ngeen attaqué leen daan daan nañ jël sax en tournant politiquement jël ay ñeneen. ñu di leen reeteet mais yow mi nga xam ne mooy Ablaye Wade nga xam ne moom la ñu war a jugé Ablaye Wade du nangu mukk mukk mukk mukk mukk mukk uh-huh. jamais du nangu mukk moom mu attaqué leen parce que day préserver d'abord moom nee na homme de droit la xam na cër bi mu war a jox magistrat léegi dara da ko see mën a fekk Ousmane Sonko ah, ci li mu wax Samba si euh, Samba Sall ah, non ak Mamadou Seck kooku man du man maa koy apprécier mhm. mais loi yi wax nañ ne kenn amul droit nga attaqué magistrat yi su boobaa nag ñoom ñoo koy apprécier ndax lii dara dana ko ci fekk. wala du ko ci fekk mais mais su doon mala daal politiquement. wala su doon a Wade la xam naa ne moom du ko def te mosu ko def. d'accord léegi ci côté politique boobu ngay wax noonu dañoo déggoon fan yële Macky Sall mu ne euh, njiitu réew mi mu ne am na dossier yoo xamante ni moom bu ko ko bu ko procureur waxee ministre ministre bu ko waxee na ko teg ko ci suuf ndax am na ñoo xam ne boo leen jàppee réew mi naa yëngu est-ce que cas bi waxu waxu président Macky Sall la d'abord normalement. Mhm. normalement moom. su nekkee côté exécutif bien que mooy président wu euh, magistrature bi mais amul droit immixé wu ci dossier boo xam ne mi ngi nekk en cours loolu ñëpp loolu loolu ñëpp xam nañ ko mais itam damay wax ne réew pays kenn mënu ko gouverner nga def abstraction wu les la la force des composantes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi damay yàgg wax ne képp koo xam ne yow da ngaa xeeb. tijaan yi ak murid yi ak catholique yi force yooyu ku leen xeeb ci biir réew mi na la la leer na la doo fi yàgg parce que suñuy watee ñoom ñoo ëpp doole ci électorat bi soo nekkee ci biir dëkk bi ñoom ñoo fi ëpp doole donc il faut que yow miy gouverner nga balancer deux choses et là c'est vrai je comprends le président Macky Sall parce que mënuloo ignorer doole bi xalif général des Mourides am wala doole bi xalif général des Tidiane am wala doole bi monseigneur am munoo ko ignorer waaw kon sooy gouverner réew mi am na foo xam ne doo fa yegg moo taxoon ci mbas mi moo waxoon ne amul benn président boo xam ne da nga bañ a di xeex ak bi gaa yi naan du ma man damay julli ji ah euh, euh, sëriñ bi naan man d'accord ma ci loolu ah ngay xeex ak ñoom ba pare di bañ a di xeex mbas mi kenn mënu ko. donc le président était obligé mu arrière. Mmh. reculer ba nekkaat à la hauteur de son peuple. mu mën a continuer waat. et c'est là où je en fait mm-hmm. où où véritablement j'interviens parce que xam nga euh, xam nga da nga wax dafa am ay force ñoo xam ne ñii dañu dañu dara lañ ci réew mi. Mm-hmm. kilifa lañu. Mm-hmm. te parmi ces kilifa la mais kii si la bokk nu mu tuddati Ousmane Sonko. c'est que Ousmane Sonko kaay ma wax la euh, mun ñu ko traiter même su fekkee nii en fait euh, infraction qualifiée de donc de viol la ah mais donc waruñu ko kii en fait traiter comme man Iba Camara. niñ ma waroon traité parce que xam na la su fekkoon ne beneen autorité la mu am nañu am na toujours yeneen mécanisme yeneen voies yoo xam mën nañ fa jaar ba nga xam bi coow bi dinañ ko réglé te coow lu jib parce que xam na la dafa nekk nit koo xam ne kii kay ma la de euh, suba mën na nekk président parce que fu mu nekk nii de par euh, non dafa nekk opposant la et puis mu am ñoo xam ne ay ñoo xam ne dañoo topp ci ginnaawam ne si ce que pour ça affaire bi. dañ ko waroon def ndànk am na yeneen voie pour ñu régler ko au lieu mu nekk affaire boo xam bi dafay siwe nii nii nii nii. moo tax ma ni moo tax ma ni moo tax ma ni mhm. moo tax ma ni moo tax ma ni dañoo toll foo xam ne fii man ku ma xam-xam ni man faralu ma kenn mais apaisement xam nga dafa am benn ay kii yoo xam ni. président bi nu waxoon loolu man dama see d'accord de même su fekkee ni ñeen yaa ngi ko fi sujet de mhm. dama see d'accord am na mais am ñoo xam ne xam na la soo leen laalee nga xam ne kii xoolal mën na créer ay conséquences yoo xam ne ñoo ëpp danger bi moo ëpp ñoom affaire li ñu def mais mais xoolal teg ko si suuf c'est-à-dire que nañ jéem a def apaisement parce que léegi rek laa wax Sénégal la notre démocratie est violente xool ñi nga xam ñoo ñoom ñoom ñoo nekk au pouvoir ak ak opposition bi toujours ay ay rapport heurté non moo tax je ne cesserai jamais de répéter que politique euh, euh, mu ne euh, monsieur le ministre politique affaire de gentleman la. d'accord mais mais mais mais professeur Ousmane Sonko lu mu am am doole tamit Adji Sarr dafa am ay àq ak ay yelleef. non moo tax ma ni la néew ma la de néew ma la ñu farax ko mais dama ne mën nañ ko régler leneen est-ce que ay kii ñu mais mais ñu tëj kii affaire par exemple Sonko mais ban rapport moom lay am pour kii pour kii du mu ci Adji Sarr moom. ñu tëj ko ñu affaire ñu bañ ko tëj ban intérêt lay am pour Aïssa Aïssa à la limite mën nañ ko ñëw xoola ñëw en fait encadré ko s'il le faut xoola pour rek apaiser il y a mais il y a d'autres voies. Euh, surtout professeur li mu wax xam nga professeur. Mhm. dafa wax dafa wax lu am dafa wax lu am solo. xam nga nee na composante yooyu euh, da nga war a dem ak ñoom doucement molo molo xam nga loolu wax en résumé. Mhm. yow nga ne ko est-ce son du Sonko moo bëgg loolu. xam nga soo ko seetloo professeur la réaction muy sëriñ yéeg li murid di tijaan yi yeneen composants yi su ñu amee problème bu xam ne garaaw na dañuy waaf dañuy wàcc dañuy wàcc devant l'état ñii di ñaan yekk non dañuy ñaan yekk di yónnee ay nit di wax di seddal mais par contre politicien bi Abdoulaye Wade rek Sonko ñeneen la plupart temps dañuy yaakaar ne ñoom seen force politique bi nekk seen gannaaw suñu ko indee imposer ko da leen di may doole ñu arrêté affaire bi mais bii mais Ablaye Wade dafa naa ne dafa naa may xel bi mu amoon mooy da doon souffler le chaud et le froid su doon Ablaye Wade ba mu xëcc ko nii ba ni ñi dégg ko ba nit ñi gis ko day taxaw. xam ne xam ne mi ngi bëgg a ci kàmb gi. waaye nag politiquement nag président. Ah. Euh, euh, euh, mais mais monsieur le ministre. Ah. kooku moom mën naa la ko certifier ñun yàgg nañu suivre politique bi. Mhm. mais kaay ma wax la de. Mhm. Abdou Diouf. Mhm. ni mu meloon politiquement Ablaye Wade mii le vieux ni mu meloon non. du point de vue moral ñoom xam na eh kaay ma la xam nga lan moo mais lan moo taxoon euh, seen mu seen mu seen pouvoir neexoon. Mm-hmm. dañoo xam ne am nañ doole ba pare ñu boole yërmande. exactement mais nag kaay ma la moo tax man foofu lay woowee kii Macky. voilà de de par sa jeunesse. c' est vrai c' vrai c' vrai moom xool non dafa war a def li ñu naan esprit de. de dépassement mais dama la wax la. moo gis nga gis nga c' que man je n'ai jamais aimé rapport ya xam bii moom la waa en fait mu tudd euh, mouvance présidentielle bi. rapport yi ñu am ak Sonko mais mosuñu gis rapport yooyu mais kay ma la finalement dañ ko réduire à des rapports crypto personnels et puis xoolal comme su fekkoon ne ay bañante la. d'accord confiance amul na. état bi moom force mu jëm ko rek loolu yow loolu loolu yow loolu nga yaakaar waaw sama xalaat dafa loolu nga yaakaar mais Abdoulaye Wade moo gënoon a garaawle fop fu mu yegg Sonko du fa yegg mais xam nga li problème mooy côté moral bi côté ay jigéen côté yooyu dañ koy moytu parce que loolu dafa sensible c'est-à-dire que loo xam ne la soo ci xasee ba dëggu dugg doo ci gaaw a génn xam nga Sonko li kii da wax ne ñoo Abdou Diouf président Macky ak ñooñu dañu waroon a xaw a wàcc xaw a seral mais Sonko tam dafa waroon a seral c'est-à-dire que soo demee même bu seraloon ngeen man bu wax ngeen wuyu ma bu wax ngeen man. fii fii tooguma fi pour président. non mais yéen a far yéen tooguma fi pour non non attends rek. man fi dama fi toog. man non waxit la rek wax la vas y vas y vas y. ah, ah. bëgg wax ne la. waaw Sonko si boppam. du président Macky rek moo war a seral. Euh. yaa a deux pourquoi yéen ngeen bëgg ngeen demande président Macky mu seral. mais seral bu na am de kaay ma wax la seral su amee su amee kaay ma wax la. du ñoom ñaa jël initiative yi. dafa am fii dañu fi bëri dañu fi bëri ay kilifa de. sëñ si waay sëñ yow am na koo xam ne kii xoolal loo mënul may dara. am na koo ah, xam ne su ñëwee. ne la Farba may ma lii. mais soo non non non d'accord naa loo xam nga da nga wax kon ne. na am kilifa yoo xam ne ñu jóg. waaw def médiation. loolu loolu nga waroon a wax. voix yi may wax noonu voix yi loolu la mais soo nee soo nee président bi. moom moo war a bàyyi moo war a seral déedéet wax wala wax wala wax ko Sonko ak gaayam yi <laughs> ñi ngi tàngal ñi ngi jafal non Abdoulaye Wade dem déedéet wax ma loolu wax ma loolu wax ma loolu ah, dama ne il y a il y am na am na yeneen fois pour ñu affaire bi calme ci Abdoulaye Abdoulaye dana souffler dañ Abdoulaye ne soo demee ba nga xam ne mi ngi bugg a damm rapport de force baa ngi bugg a damm yëpp nee na taxawal tuuti nga dé nga del si waat kooku mais kooku ñëpp xam mais Ablaye Wade bokkut ak Ablaye Wade bokkut ak Macky de Ablaye Wade nee na Macky bu màttee du bàyyi déedéet waaye defe naa xam nga ne attends non loolu xam nga yéen xam nga da ngeen a far non professeur <laughs> non waxuma la yow de far booy la non non waxuma la yow de non non professeur kii laay wax eh, farul de farul non non defe naa xam nga <laughs> non xam nga moom xam na non xam na man nag tax mayel dawa far non xam na man far non far xam na xam nga li tax mayel dawa far yow en toute responsabilité <laughs> dangaa war sooy wax soo waxee Macky li mu war a def nga wax Sonko li mu war a def mais munoo su ma waxee rek nga ne Macky te man toogaloo mu fi Macky. xam man man yàlla xam ne gis nga Sonko damaa bokkul ci seen groupe seen groupe yi à chaque fois dama leen doon jox ay conseils te mënoon nañu ma génne ah mais xam nañ ne ànd ma woon ak ñoom mais man su man nitu dëgg laa. dëgg la dégg nga dama leen wax ne Sonko yàgg naa leen ko dégg ma leen Sonko yoon bii mu jaar nii ah su fi jaaree du yàgg fa mu jëm. waxoon naa sax ne. Uh-huh. Sonko épiphénomène la. mooy loo xam ne dafay tàkk nii rek après mu fay parce que yow mhm. tout un système nga ne système bii ñëpp ku jóg ma dóor mu daanu ma ne ko na xool la xew France ak la famille Le Pen wax ko fii sax ci rajo bi wax nga ko fi waaw wax naa ko fi d'accord na jéem a naxante ba yegg fa mu jëm d'accord mais su xeexee du sori d'accord léegi waxtu bi jeex na trente secondes euh, professeur waaw mais maa ngi leen di gërëm di leen sant nag di jéggalu nag di jéggalu véritablement j'ai tout fait normalement lorsque que suuf nañ ko defar voilà ci suuf mais gis nga xoolal soo jógee fii pour nga dugg biir yoof da ngay dem ba da ngay wëri ba sonn voilà kontaan naa waaye kontaan nañu non vraiment kontaan nañu quoi ñun daal xam nga ku ñu faral uh-huh. mooy la vérité il faut que la vérité jaillisse uh-huh. il faut que Sonko mu dem jàkkaarloo ak juge bi ñu xam moom lan lañ koy reproché moom itam mu mu jóg ah mu joxe position am man bañ ma ko defee wax naa la de ba ma waxee gars yi ci commission adopte ba plénière woowuñu ma plénière kenn woowoo ba xam ne suñu wooyee suñu ma wooyee PDS tas donc Sonko na dem wuy ji ku ko waxal ne ko bul wuy ji daf koy daf koy nax. parce que yow li nga wax personne ne peut se soustraire. d'accord ci juge bi te day ñëw mhm. jël si la. d'accord waaw kon nag maa leen di gërëm bu baax di leen balwaax jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, jërëjëf professeur euh, Iba Barry Camara Abdou Khadre Seck la woon seen émission pencum réew mi Adama Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm